jërëjëf mbokk ñuy topp ci at tarbiya wa taalim ki nekk ci kàddu gi seen mbokk Baara Diop di joyanti Mokhtar Olie euh, Baara mudiru Ida Alfayda waaye mudiru Melax TV nekk murasil Ida Alfayda ci diwaanu Saint-Louis di nuyu ñu ñuy teewlu yëpp di am mbégte ak kontante idaara bi waxtaan wu am solo woo xam ne comme ni ko majmu ak tarbiya wa taalim di ko faral di amee ci wàllu ku ñàngal ñàngale waaye it du yem foofu xew-xew yi am ci biir réew ci bitim réew actualité yu intéressé ñi nga xamante ne ñoom ñooy gëstukat yi borom xam-xam yi rawatina sénégal yi ñu war ci dalal ay borom xam-xam mën a waxtaan ak ñoom tey ji nag ay borom xam-xam yoo xam ne kenn dootu leen di présenté ti ci saaxa bi rawatina ci point bu ñu war a waxtaanee ki ci jiitu nekk al baaxit saxafi amiru shuara al ustaaz Abdul Ahad Ñang nekk journaliste taskatu xibaar ci kàllaam ak waaye nag nekk borom xam-xam nekk bindkat nekk wéykat boo xam ne macha allah ñëpp ñu ngi bénéfice di jëriñu ci mbindam ak ay jàngatam yi def ci actualité bi tey nag ñu war a waxtaanee moom ci xew-xew bi am fële ca Moyen-Orient ci diggante Israël ak Palestine. ñu war a dikk ak moom ci ay point waaye nag sunu ñaareelu gan gi nekk Moustapha Sagnane nekk euh, secrétaire général syndicat national des enseignants des enseignants en langue arabe euh, du Sénégal en même temps bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy bokk ci syndicat yoo xam ne dañuy jàppale Palestine ci àdduna wërngal këpp ànd ak loolu mu yore ci ay responsabilités yu mag dinañ ci dikk ci ñaareelu pàcc bi ak Moustapha Sagnane waaye nag ci ki ñu njëkk dalal di Cheikh Yohan Niang ñu bàyyi ko rek mu présenté wu ñu dikk ci laaj bi bàyyi ko bismillahi arrahmani arrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين وبكجلد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maa ngi nuyu mbooleem uh, mbokk yi nekk ci ëtt bi yëpp di leen sant bu baax di leen gërëm di am mbégte lool ci fas yéene ànd ak yéen ci jotaay bi nga xam jàpp nañ jotaay bu am solo la te jamono soxla ko di nuyu ci njëlbeen suñ Mouhamadul Amin Baara mi nga xam ne mooma ci jotaay bi nii waaye di nuyu mbokk suñu maxtaandoo yi mi nga xam moom a jotoon a uh, mbokk mi nga xam ne ni moom lañ seqal jotaay bi di sëñ si Moustapha waaye tam nag di nuyu mboolem mbokk yi nekk ci at bi yëpp di am mbégte loolu nag ci yëkkati kàddu yi fii nag ndax liñ ciy wax lépp la doon loo xam ne incha allah ñu ngi koy waxal cumbul da nga leen wut ci joxe kàddu gi rek waaye bu ko defee incha allah jóppal liñ ci feeñal rek ci mu doon loo xam ne tam dëppoog noona yàlla nañ bokk njariñ la mu nekk tawfiq boo xam suñ suñu borom dañu koy séddale ñun ñëpp lépp lu ci rot ci njuumte rek ngeen jégal ñuko inshallah do med mo matut kon sëñ Baara ñi ngi lay ñi ngi tëgg fu gaddu inshallah bismillahir rahmanir rahim الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه alihi wa sahbihi wa wala waaw kay jërëjëf sëriñ su ko defee ci bi ñu wax ne euh, ñun li ñuy leeral ñu ngi ko sukkandikoo ci gëstu yi nga xam ne nii ay borom yi xam-xam ñoo ko def ci wàll gi ñii gëstu ci wàllu français moom buñ jëlee livre Roose Garaudy bi Roose Garaudy bi dañ ci xam lu bare bare bari waaye bu dee ci ñi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu arab yi nag am na ay delluwaay ay document yu am solo yoo xam ne nii ñi ngi koy eh, bind di ko tasaare ci fànn gu mel nii di ci leeral taarixu Israël ak ak ak sosoom su ko defee nag la ci am solo rek mooy bu ñu koy bu ñu bu ñu exposé li nga xam ne boroom xam-xam yi wax nañ ko ci ci fànn gi bu ñu noppee incha allahu taala suñu kemtulay kattan buñ mel a tudd source yi nga xam ne mom lañu jëlé suñu gas yi nga xamne mom lañu def ci wàll gi yenn ci ñoom ñu tudd ko ala kulli hal laaj nañu xam problème Israël ak Palestine ba tax jafe-jafe yi am seen biir ñuy muy xeex boo xam mi ngi continuer ay ati ay bari lool ay bakkan bi ci wadd Israël mi nga xam ne ni nag toujours jafe-jafe bi ci moom lay soqi ko muy mu mën a jafe-jafe nag mooy rey bakkan yi ci moom lay soqikoo ci ndax doole ji mu yor laaj na ñu xam moom israel moom nan la sosoo ak itam ña ko sosoon objectif yi ya taxoon ñu sos ñu sos ko ak ci sos sos googu fan la déparé kon ñu wax ne rek kenn munta tudd sosub israel te tuddoo li ñuy tuddee as sionisme mu ne su ko ñàkk tudd ci cosu teg israil ndax manees naa wax ne taariqu iqamati dawlatin yahudiya ñoom dañ cey tudd moo tax ñoom kenn mën leen a tudd ñàkk tudd ci sosuk israil daanaka ñoom ñoo manees naa wax ne ñoom ñoo sos nga xam sax nag buñ ko gëstoo ba gëstu ko ñoom mouvement politique rek lañ woon rakk si yi la lañ woon boo xam ne am lu leen taxoon a jóg te ñoom seen doole fi mu toll buñ demee ba ci mujjantalu jotaay bi dañ xam ne am nañ doole te xeex ak ñoom yombut ndax euh, ki ngay xeexal da koy xam te xam leen dafa jafe lool ndax ni ñu organisé kon man islam wax ne sionisme moom ni ñu tuddee ak sixioniya mouvement la boo xam ne mouvement politique la boo xam mi ngi feeñ ci mujjantalu ñaar mën a fukkeelu siècle bi ak juróom-ñeent ci gane yonent yàlla Isa ci la feeñ feeñ ci biir ay rassemblement yoo xam ne juif mooy maanaam kuréel kuréelu juif yi nga xam ne dañoo dajaloo woon nekkoon ci digg ak penku Europe foofu la mouvement bu soqi ko mouvement bu nag bi mu taxawee dafa am xalaatu amal benn existence politique maanaam fa fexe ba Euh, taxawal benn état boo xam ne nii état bi day may doole juif yi ndax jamono jooju ñu doon xalaat xalaat boobu jamono la joo xam ne nii yahudi yi dañoo nekkoon ci xaalata tii dañoo gëlëm dañ ko doon gëlëm ndax ngëlëmte gi ñu nekkoon li ko waral mooy al mamlakatul ashuriya bi nga xam ne nii daanaka moo leen toroxaloon comme ni mu dëppoo ak seeni pas-pas mu laaj nag toroxte googu gi ñu war caa génn nag am état bu dëgër boo xam ne moo leen di permettre population juif yi mën a dellusiwaat ci am réew ma nga xam ne ni jàpp nañ mooy seen réewum cosaan te mooy réew moom dañ ko tudd ci kanam mooy Palestine léegi nag mouvement boobu muy alxarakatu sihiyoni boobu am xalaatum ne kon yahud yi tàqalikoo ci biir àdduna bi tasaaroo ñu xañ leen seenug dund xañ leen seenug am xañ leen seenug jekkite seen seen seen jaxasoo ci àdduna bi egg ci darajay daanaka ñoom feeñatut feeñuñ ci wàllu politik feeñuñ ci wàllu social feeñuñ ci wàllu économie te loola ñu gis ne ñoom bu continuer di wéy ni ñu tasaaroo ci àdduna bi nekk ci biir ay société la leen di dal mooy jàngoree dawabaan daaxilal mujtamaatil eurobiya maanaam daal dañuy feey ci biir société européenne yi dañ ciy feey ñoom buñ amati ya nga xam ne ni moom lañuy ñuy nekk minorité ci biiram di fa dund kon ci lañu ñu mujj feey maanaam euh, yusibuhum xataru dawabaan داخل المجتمعات الأوروبية التي كانوا يعيشون داخلها نك أي أقليات لولا تحني نكون ne نك أم ñàkk ورول تنيوم تلولا دلين دي يبه discrimination bu métti buñ leen di def xeet leen nga xam ne dañuy isolé wu dañ leen di teg na daanaka duñ amati dañuy tegu ne politiquement duñ am économiquement duñ amati léegi nag ñu ne kon laaj na kon ñoom juif yi ni ñu taqalikoo ak ni ñu leen xeebe ñu amaat doole léegi nag bi ñu xalaatee loolu ba noppi ñu ne alxarakatu sexwene boobu ak dellu seen gi ñu soxla munta amee lu may effort boo xam ne juhudun yahudiyun baxt maanaam effort la yoo yoo xam ne ci ñoom lay déparé ñoom seen bopp ñoo mën a taxawal seen bopp joxe effort ba mën a jël siwaat nga xam ne duñ sukkandiku ci benn zahir boo xam moo leen di jàppale léegi nag ñu daal di ne léegi faw seen effort bopp la ñuy sukkandiku pour mën a del siwaat léegi nag bi muy feeñ ci biir Europe ñoom da daa fiiroog muy jamono joo xam ne euh, adduwalul wataniya fil qarnayni as-sabi ashara wa samina ashara état yi dañ doon xeex mu nett metti boo xam ne nii xeex boobu tax na eh, xaraka sixyoon yi bi ñu ñëwee dañoo gis ne kon lenn rek moo leen di mën a may ñu mën a amaat doole mooy ñu am nazaa qawmiya nationalisme ñu am ko yi nga xam ne nii nationalisme gu yor mujj na am doole sax nag ba am siyaada ci Europe ci ñaari siècle yu ñu wax noonu mooy at ci astafurlah ci ci alqarnu attaché ra ndax état yi doon xeex xeex bu metti tax na ñoom ñu profité ci occasion boobu jaar ne kon léegi faw ñu am nazaa qawmiya mutaazima yoo xam ne te suudu Europa ndax moo leen may li kon ñu daal di gis ni comme al intimaul qawmi yu'tabaru ruknan euh, rakinan pour mën a sensibiliser pour mën a dellu si waat mën a taxawal kiyaanaat yi nga xam ne kiyaanaat watani yoo xam ne dañ ko soxla ñoom kon gis nañ ne daal al qawmiyatu moom lañ itibaar mu nekk al hadaf al asas al siyasi al asasi pour mën a dellu si waat kon ñu daal di jël ñu daal di jël al qawmiyatu mu nekk étape boo xam ne période la boo xam ne ron romb nañ ko léegi nag euh, bu ñu xamee ne kon dëgg dëgg dëgg objectif bi mooy bëgg a nekkaat bëgg a dundaat bëgg a bëgg a garder lañ la xañoon mooy puus seex yoon yi pour ñu euh, bëgg a fondé état bu ñu tuddee Israël loolu nag ku ko tudd faw nga tudd ay nit moo tax ñu ne sosuk xaraka seex yoon yi boobu am na jokkaloo dëgër ci xel yi képp ko xam histoire bi ak ni muy demee sa xel dana dem ci alkatib wa saxafi Suysiri maanaam bindkat écrivain journaliste bi dëkkoon Suysira ñu ko tudd Théodore Théodore Herzl Théodore Herzl boobu manees naa wax ne kenn mënta tudd histoire bi tudd ko tudd waaw daanaka manees naa wax ne al mashruu sihyoni moom mooy ki ko porté woon donte baatu baatu sihyoni bi moom xaj na ñu koy askan waaye siiw na waaye baat baat bi déparewul ci moom benn na beneen nattangoom bu Suisse boo xam ne ab journaliste la moom it bu ñu tuddee naataan mm, ber bernabon day mel ne baat boobu ci moom la soqi koo moo moo inventé mustalaxu mustalax boobu moo ko inventé ci atum mille huit cent quatre vingt xam ne wax nañu ne sens bi mu ko joxoon moom mu yor muy muy muy muy saxiya ne li muy firi li mu ko joxoon moom yu akkidu annahu yaani an nahdata siyasiyata lil yahud maanaam da ko jàppe mooy jog politiquement boo xam ne ni maanaam moom moom lay mébétal juif yi ñu jóg ci wàllu politique del si waat nag nekk mbooloo ci suufus Palestine wala ci beneen sens bu mu ko jox dañ naan ko mooy i'ta'u madmunin siyasiyin wa qawmiyin lil yahudi kon fexee ne loolu firig ñoom ci moom mooy joxaat nag ampleur joxaat doole joxaat doole ci wàllu politique ci aw nit joxaat ko juif yi loolu baat bi bi ko aju yi muy naataan Bernabon boobu euh, baat boobu sens ñaari sens yi mooy nahda siyasiyin lil yahud wala mm, i'ta'u madmunin siyasiyin wa qawmiyin lil di loolu ñaari sens yi lay firi ci moom ñaar ñu ñu ma wax noonu nag mooy ñaari journalistes yi nga xam ne am nañ doole ci porté xaraka sahyoni bii nga xam ne ñoo sos ñoo ñoo ñoo dox ba état état Israël taxaw lu leen jiitu amoon na ay kilifay ci yahud yi ñu ngi ay xaqaam yoo xam ne yu mag lañu e, ci yahud yi yoo xam ne taxawoon taxawoon nañ tab ñoom jël adapté woon nañ jëloon xalaatub alqadiya al yahudiya ci ci année Euh, ci digg maanaam alqarnu taasi ashara euh, yoroon nañ xalaat boobu te la leen ci poussé woon mooy noonoo goo xam ne nii euh, mu aadaatu assaamiya boo xam ne nii xawoon naa faagagal Europe noonu gu moo leen poussé woon ci ñu yor xadiya ñu ñu yenn woon xalaat boobu continuer ci étape bu ba egsi ci ñaar fukkeelu siècle bi waaye Herzl moom moom wax nañu ne mooy abul harakati as yoon yi moom lañ jàppee mooy daanaka mooy bàyyi mouvement boobu wa saahibu mashru'i dawlati al-yahudiyya ma nees na ko wax moom waa ji jundoon xam nga toujours ñaare groupe bu ne ka ca gën def liggéey bu siiw kooka lañ koy askanale donte xaw naa yaa xaw naa kii moo tax ñu ne moom euh, xaw naa xalaat waxtaan na ci waxtaan lu aju ci euh, ci masru dawla al yahudi boobu ci benn téere boo xam ne daf ko génne woon ci atum mille huit téere boobu mi ngi ko tiitre woon ci ad dawlatul yahudiya da ngay da gis ne euh, xaw na cee yaatal ay xalaatam xalaat yi nga xam ne jàpp na ne euh, moo mën a may doole ba Macron projet bu ñu porté pour dawla isra dawla yahudiya mu am réussite leeral na ko ci téere boobu waaw xalaat boobee nag la ca gën a fës mooy fexe ba sensibiliser yahudi nekk ci adduna bi yëpp ñu gàddaay dem Palestine waaw gàddaay def dem Palestine waaw nga xam ne ngir ngir ngir xadiya yahudiya boobu ñi nekk ci àdduna bi yëpp fexe ba dajale cercle juif yëpp ci ñu yor xalaat boobu xalaatu fikratu ad dawlatul yahudiya bi nga xam ne lu ëpp ci kuréelu yahud yi ñoom amuñu woon xalaat boobu am na sax ñu ko contre mooy kuréel boo xam ne am nañ ci dawla Israël léegi nag euh, xalaat bi pratique théoriquement moom leer na mais pratiquement nag kañ la kañ la seq ak jéego nag pour am pour jëm ci kanam ñu ne ko bi njëkk a taxaw ci mbirum projet boobu pour mu ant mu ngi soqi ko ci benn association boo xam ne nii ay étudiants juifs yu nekkoon ci madinatu xaan bi madinatu madinatu keef maanaam xaar keef bi nga xam ne nekk Ukraine euh, ñoom Euh, association bu nga xam ne nii eh, ay étudiants juifs ñoo ko fondé woon ci ci dëkk dëkk bi ñuy wax xaar kéef ci Okran Okrania ci atum mille huit cent quatre-vingt-deux quatre-vingt-deux euh, association bi ñu ko tudde woon Billo bil arabia léegi nag moom moo fexe ba bennale moom association bi euh, dajale yitteem jëpp def ko benn muy benn objectif damay fexe ba rek am doole manam dal fex ba masru juif yi dal mu mu mu egg fañ ko taw moy euh lolo nak mi ngi ko tambalé ci amal ay tajammuat salah yoo xam dañuy liggéey ci walu agriculture yo xamna ni mi ngi ko won ci juif yi nga xamna ngi won ci won penk fexé ba amal ay tajammuat salah ya euh, pour mu nekk nuqtatu intilaq waaye biñu doxé di dox di dox di dox ba egsi ci euh, année bi ñu tuddee mille huit cent quatre-vingt-dix-sept mënees naa wax ne alxarakatu bi nga xam ne moo porté xalaatu daw Israël ku ne daa war a am mënees naa wax ne solo suñ ko jox ci wàllu politique ak wàllu communication am na solo lool bi ñuy amalee congrès bu njëkk boo xam ne ñu ngi ko amal ci euh, le vingt deux le neuf jàpp 31 août ci 1897 amale woon ko ci dëkk bu nekk Suisra muy dëkk muy su bal bi nekk Suisra foofu lañ amaloon euh, congrès boobu congrès boobee la ci juddoo mooy i'lan qiyamul harakati sihyani al alawiya waaw mooy sihyani bi mouvement boobu bi nga xam ne ma international mondial euh, euh, ëmb ëmb àdduna bi ñu tànnal ko benn comité exécutif lañ ne tan fisier boo xam ne ni dañoo defoon seen siège ba Vienne naa mooy capital Nimsa boobu lañ fa defoon seen seen siège foofu nag ci tàmbali ay mu muassasaat tàmbali di am doole ci askano eh, ginnaaw ba it ñu defaat beneen congrès boo xam ñu ngi ko amoon ci mille neuf cent un ginnaaw ba ñu décidé amal benn kees goo xam ne nii xëy na alal dañ ci mën a judd boo xam bu ñu soxla ay financement mën ko cee jël jéego boobu nag dafa xaw jamonon tek juif yi tàmbali di gadda ñoom it yi féete woon ku jëm falastin surtout nak juif fi nekkoon Russie ndax ak sawratul bolchevique bu nga xam amoon na ci 1905 legi nak xana nak bu jafe-jafe bi amé ki nit porté porté ab ab xalaat boo xam ne nii bëgg na mu am réussite faaw mu wutal ko mu am ay jaar jaay léegi nag ngir moom waa ji mooy xars Théodore xars bu nga xam ne man man mënees naa wax ne xarsal bi nga xam ne moom moo yor moo yoroon xalaat boobu ngir mu gëstu nag euh, doole joo xam ne ni dana ko mën a am pour mën a taxaw dafa demoon làqutu yi ci addawla al osmaniya négocier ak ñoom ci diggante atum 1896 jàpp 1906 ci ñu génn benn pact benn benn charte boo xam ne dafay may juif yi ñu am xàqa ci mën a dellu Palestine waaw waaye négociation yooyu xëy na eggul ca résultat bi nga xam ne moom lañ soxla woon ci la ci amu ko foofa daal ci ba mu demee ci dawla osmania boobu ci la Herzl boobu Théodore décider dem Angleterre foofu nag ba mu fa demee am na occasion man a gaaral iskaalu alhijra boobu hijra yahudiya man koo gaaral ci seen conseil yi seen daje yi foofe mu amal ay relation yu am doole ak politiciens yi nekkoon Angleterre euh, bokk na ci politiciens yi benn ministre boo xam moo doon toppatoo wàllu lu jëm ci wàllu colonialisme mooy Joseph Chamberlain Chamberlain Joseph Chamberlain mooy Chamberlain moom la moom la moom mu waxtaan ak moom kooku moo ko proposé mu taxawal benn rassemblement ci yahud yi ñuy daje ci ci Arish nag benn dëkk la boo xam ne ma ne sama mooy mi ngi dëkk la boo xam ne nii mi ngi nekkoon ci ci bi mooy capitale sax Sienna mu province bi ñu tuddee Sienna ci Misra Arish bu ñu fa daan daje wala ñu ne Ouganda la sax en tout cas gis na ne daal euh, moom daal kooku moo ko proposé loolu waaye waaye euh, teewul en tout cas dox na ay jéego foofa ba am na ci politiquement moom am na am na ndimbal boo xam ne nii jural na ko ñu reconnaître mooy Brit bi Angleterre reconnaître maanaam juif yi ñu nekk nation boo xam am nañ xaq am nañ ci ci ma am siyaada ci mën a équiper nag benn misaaxa ci suuf boo xam ñoom dong koy jagoo toujours historiquement euh, jéego yi nga xam ne nag moom la Herzl doon def dipoli di muy di diplomatique diplomatiquement di ko dox ngir mën a taxawal dara bi mu jaaree ci côté diplomatie am na ci ñoo xam ne ay nattangoom yoo xam ne koo koo xam ne dafa siiw lool ci jàpp ne réussite bi mu soxla ci masron bi jaaree ko ci diplomatie bi tax mu am réussite na ko jaar ci côté royam mooy at tariqul malaki léegi nag foofu noonu xëy na kon ñu daal di bëgg fëgg fëgg bunt boobu jàpp ne daal euh, bi tariqati al malaki yi ci lañ mën a jaar pour am lañ bëgg pour taxawal pour taxawal maanaam état boobu ginnaaw bi nag day mel ne bañ jaaree ci loolu euh, waa ji waa ji waa ji nga xam ne ni ku siiw la ci contrôle fersal ci diplomatie bi muy jaar moom jàpp ne ne moom loolu du soq du soq sottal mbir mi amul benn njariñ moom da jàpp ne daal mun mënta buy buy fëgg sixéer yéene bu ñuy fëgg bunt boobu duñu am nañ bëgg loola nag yóbbee na ko moom ci ci boppam daal ci atum mille neuf cent dix-sept novembre tuuti mille neuf cent dix-sept ñu daal di mm, am doole ba mën a taxawal nag ci ginnaaw bu sukkandikoo ci ab tariqul malaki boobu pour mën a laytaay nag daw dawla Israël ginnaaw ñetti maanaam ñetti uquud yoo xam ne ginnaaw maanaam mën a wax ne fanweeri at yoo xam ne jombul mi ngi doon ñi ngi doon ñi ngi doon bëree ngir ngir ngir mu taxaw léegi nag euh, munazamaat yu munazamaat yu may wax nga xam ne euh, ñi ngi doon léggéey ngir état Israël gis nañu ne bunt min mën a jaar pour am la ñu bëgg mooy ñu fexe ba yahudi yi gàddaaye fañ nekk ak fuñ mën a nekk ci àdduna bi dem Palestine su ko defee nag la doole jëfa Palestine yéen am amoon ñu fexe ba démocratiquement démographiquement mu wàññi ko waaye alxarakatu sahiyune en tout cas bi ñu ñëw ngir bëgg a équiper suufu Palestine bu pour taxawal fa seen état jàmmarloo nag défi bu mag a mag a mag mag ci seen biir sax ndax défi ba ci gën a fés bokk na ca mooy ci seen biir société juif bi di ci am ñoo xam ne àndul ci xalaatu taxawal maanaam état boobu nga xam ne ñoom ñoom daal ñoom amuñu xanaa daal ci ci këratu maanaam ad dawla ñoom loolu mooy défi bi gënoon ëpp doole ci ñoom donte ñu ngi doon sensibiliser seen mbokki juif yi nekk ci àdduna bi pour ñu ñëw Palestine pour taxawal benn état waaye nag daaxil al mujtama al bi hunaka fi'atun wasia min hada al mujtama gayru muqni'atin bi fikrati dawla ñoom amuñu خلات بالتا خول اب دولا واو اي نك بيغا خاني نك محرقه الحرب العالميه الثانيه بشي بو سين لاك غن لاك سي على يد النازيه امنا سي لاني نك كونفينكرو سي خلات بوبو بور مانا عباده اليهود بي امون فوفا دا نك موتاخ ني بورتي خلات بي لكن نك القوى الاستعماريه سورت انجلترا اك فرانس ñu daal di gis ne daal loolu xalaat la kon pour juif ci biir Palestine foofu nag Angleterre mi nga xam ne nii moo moo moo moo moo jàpp ak France ci loolu teewul mi ngi doon bàyyiwaale xel ñi ko histoire nettalee ci ne en tout cas luñ mën a taxawal it dawla israélien buñ nañ fexe ba buñ egg ci dooley dàq nag sañ-sañu palestinien yi maanaam al palestinien yi nga xam ne ñoo am xàq ci ci seen suuf la kon buñ taxawalee état bi it amuñu sañ-sañ ci xañ leen manam seen xaq ñoom la takunu ad-dawlatu al-yahudiyya muradifan li nafi haqq al-falastinin fi iqamati dawlatihim yamit ñu ñoom ñu war leen reconnaître ak seen état ak seen euh, indépendance ak seen tor doole ak seen seen seen siyaada léegi nag euh, bi loolu amee bañ bañ ba nga xamee ne mi ngi dox noonu ay kuréel yu aji ci wàllu cheikh yéene boobu ñoom it ñu gis ne kon daal ci doole ji lañ état Angleterre jox ci atum 1947 ci misaal ci la euh, kuréel yu daal di taxaw nag ci mën a war a war a mën a jëmmal nag xalaat bi mu daal di jëm mu daal di jëmm nga xam ne nag bi ñu taxawalee Israël kon léegi formé ko euh, mu mu am doole tàmbali di yokk euh, liñ doon junj léegi ci boo demee ci am réew réew moo xam ne ci cosaan ñoom te ñoom li tax ñu bëgg faa dellu si nañu wax nañ kon foofu la seen maam nekkoon ñoom ñu ñoom juif yi mooy suuf si ndax tànnoon nañ ay ay preuve yu bëgg faa delloo dajaloo waaye mu axaran fi mujj tànn mooy Palestine ndax Palestine ñoom ci baat ñoom kii suuf suuf suusu dañuy jàpp ne ñoom ñoom Israël euh, Israël baat baat bi sax boo xoolee mi ngi dellu ci yonent yàlla Yaaqub bi nga xam ne nii mënees na wax ne moo fondé fukki Eh, usra ak ñaar yi nga xam ñooy maam yi israéliens yi yi jiitu ya kon ñu ne kon foofa daal dañu jàppoon fa la seen suufu maam yi ya nekkoon fa lañ war a dellu waaye nag buñ la mayee ci barab nga taxal fa taxawal fa sa état ba noppi xanaa war ngaa may xaq ña nga xam ne ñooy cosaan barab ba eh, am xaq ci dund ndax ginnaaw bu ñu amee seen xulum boobu ñu ñu taxqee seen seen seen seen gént goo ci taxawal dawla israel ci atum 1948 bi ñu doxee di dox di dox di dox ci mujjantal bi kuréel yi tàmbalee am doole yematuñ nag ci bëgg siyaada ñoom dong si yem yem foofa waaye dañoo egg ci nag seen doole jiju may leen ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu egg ci li ñu tuddee yor xalaatu li ñu tuddee unsuriya ñu unsuriya unsuriya mooy wàllu boddi konte ci weeru wàllu xeet mu daal fikratu nazati al unsuriyati al mutatarrifa tàmbale juddu tàmbale am doole tàmbale yokk ba mu mujj mu jur yëmatuñ ci taxawal seen état képp waaye lañ bëgg rek mooy état bi bu saxee ba noppi ñu fexe ba éliminer waa Palestine ya fa nekkoon nga xam ne léegi buñ leen éliminer ba ñu jeex takk ñu iqaama dawla ala anqaadi dawlati Palestine buñ leen bi éliminer ba ñu jeex takk seen xalaat dëgg mooy taxawal benn dawla boo xam ne Euh, dañ koy taxaw ginnaaw buñ mabbee daw dawla boo xam ne yahudiya xaalisa lay doon mu mel ni xalaat boobu nag daanaka bi ma doon sardu mooy indi crise bi moo indi jafe-jafe bi ndax ñoom li bëgg liñ liñ gëm tuuti nii buñ li ñu bëgg mooy euh, Quds nekk asima abadiya li Israël ndax Israël xam nga capitalu économique bi mooy Tel Aviv waaye capitalu ba léegi euh, Quds amaguñ fa doole daan ay ay consulaire ñoo fa nekk bu ñu sañoon nag fikra unsuri bii nga xam ne am na doole lool ci israéliens yi ca ña ko sosoon sax ñoom donte euh, mbirum diine yitteelu leen am na ci ñoo xam ne ate euh, leen jàppe woon léegi ñoom euh, lañ bëgg fi nit ñi mooy lan mooy éliminer waa Palestine complètement ñu daal di fay jógee jeex fa takk ñu étal ñu taxawal seen état boo xam ne dafay nekk dawla yahudiya xaalisa loolu nag moo jur problème bi am léegi nag bu ñu xamee Israël li ko sos kon ndeket yoo kon li ko sos mooy maanaam yahudi niñ taqalikoon ci adduna bi am benn réew boo xam ne dañ fay daje mu mu mu mu may leen nag ñu mën a siggiwaat amaat doole yëg ne ñu ngi dund ci adduna bi fu fu loola mooy mooy li sos Israël. benn ñaareel ba mooy ñu xam ne it dañ leen discrimination bi ñu leen bi ñu leen bi ñu doon dund la leen ko mën a may mooy am dawla boo xam ne nii euh, daf leen di daf dañuy nekk ci biiram am siyaada am lépp. mu dajale yahud yëpp loolu yëpp na leen ñu daal di fexe ba sensibiliser yahud yi nekkoon ci adduna bi yëpp lu bari dem foofa ngir ñu mën a équiper seen seen seen seen nguur foofa waaye xalaat boobu it ñu xam ne bari na ci ñoo xam ne ànduñ ca woon ba tax na ginnaaw bu alxarbu naziya yi almariya naziya boobu mais maxraqatul yahud daanaka moo tax ñu convaincre ci xalaat boobu waaye tam ñu xam ne it ci biir juif yi am na ñoo xam ne nii xalaat boobu xëy na ànduñ ci ba tax na sax ñoom dañuy noonu ak ñoom loola bu buñ duggoon ci ci yi ci nekk ci biir loolu dana leer waaye ki ki nga xam ne moo gën a porté xalaat bi xam nañ ko mooy Théodore Herzl boobu nga xam ne moom la ñu wax abul xarakati sahyoniya daanaka mënees naa wax ne moom moo porté xalaat bi waaye mënees naa wax ne baat bi fi mu soxla moom benn naatangam la bu ñu tudd naataan Bernabon te it xalaat bi muy sahyoniya bu baat bi li li mu wund ci ñoom mooy nahdatul yahudiyatu nahdatu asiyasiyatu lil yahud jógaat ci wàllu politique daanaka mooy taxawal état rek wala ñu ne mooy taw madmonu siyasin wa qawmi lil yahud waaye tam bi doxee ab diir waa ji def nay pexe ba jaar ci ay jaar-jaar jaar na ci état osmani osmani bi waaye amul lam bëgg mu dem Angleterre xëy na ñoo ko may doole ja ba taxawal ko waaye Angleterre mi ngi doon réservé waaye nañ bàyyi wala xel bu neen fa si Palestine nañ bàyyi xel xel ñu fa dëkkoon waaye ginnaaw bi si kër la Suria al mutatarrif jëpp ci ne liñ bëgg mooy nañ éliminé ba Palestine jeex tàkk foofu les Quds nekk capitale Israël bu ko defee ñu taxawal dawla yahudi yi xaalis loolu nag mën na moo créé problème bi fi mu ñu toll léegi nag bu ñu xamee loolu ba xaraka sixiyoon yi mbokk yi bala may jeexal foofu ci ci ci côté historique bi ñu am doole lañ ñoo xam ne xeex ak ñoom yombut dëgg dëgg dëgg xeex ak ñoom yombut ndax dañoo organi organisation boo xam ne nii boo doon xeex ñoom euh, pour nga pour pour nga natt leen du yomb ndax ay ay ay dañ ko def ci ay réseau lañ ay réseau lañ réseau lañ boo xam ne nii adduna bépp mënees na wax ne dañ ko équipé sa réew mooy dem boo demee ci réew mu ne daanaka dañ ko dañoo seddule ci biir biir biir secteurs yi nga xam ñooy ñooy ñooy composé réew bi boo demee ci économie réseau yoo xam ne ci biir économie bi économie mondiale bi ña nga ci biir ci réew mu ne boo demee ci politique bi am nañ ay réseau yu nekk ci biir boo demee ci biir social bi boo demee ci biir biir biir politique bi boo demee ci wàllu journalisme gi économie communication bi wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu juge wàllu atte wala justice yëpp foo ci dem rek ay ay ay ay réseau lañ yoo xam ñu ngi ci biir nga xam ne même état bi nga xam ne nii sax xam nañ ne li ñu doxal ci ci Israël jaarul yoon état bi nga xam ne nii moom dafay jël engagement ci ne faw mu taxaw naqarlu wala mu xeex ak ñoom état boobu dafay risque rek ndax ci biir réewam am na ka ay réseau yoo xam ne ñoom la ñuy te dañuy naqari xam bu ñu taxawee pour contre la mën na daañu sa kon day mel ne daal kuréel la boo xam ne nii ay individu moom doyu leen ay benn benn doyu leen ndax ay réseau lañ réseau yi nag maanaam man sama mboo pour xeex ñoom pour pour éliminer leen ci kaw suuf du yomb waaye nag euh, la la leen di jaaxal mooy ay mbootaay ay kuréel yoo xam dañoo yeewu nekk nit yi diine yu set yu sell xam la def ba ba a organisation boo xam ne ni ñu defee ay réseau ñoom ñoo xam ne ñu amal yenn réseau yu mel noonu boo xam ne dañuy dañuy dañuy nekk seen seen seen entité di leen di leen di leen xeex waaye ni ñu moom Euh, en collaboration ak lobby yi nga xam lobby franc-maçonnerie ci mondial bi ci aduna bi ñooñu yaakaar naa xex leen du yomb kon dal señ bara japp na ne dal lila wajulon ci histoire Israël ak li nga xam dem xam nañ ko ci walu na mu ak euh, ni mu amé doole ci su ko inshallah ci def na ay xalaat la yo xam yu ñi toftal la ci waxtan wi ginnaaw bu ñu diglo mbokk mi ci def ñi ngi jéggul mbokk yi ci yépp bu ci nek inshallah allah ngeen di wa rahmatullahi wa